Serigne Touba kenn du Serigne Touba Xaadimu Rasuul Omar Sow yàlla na la Serigne Touba Xaadimu Rasuul fay jaajëf. gars yi maa ngi leen di siyaar maa ngi leen di bégee noonu la demee Omar Sow may na Baye Seex oto may na ko 4 x Golf mi ngi nii ma téye di xaar Baye Seex mu ñëw ma jébbal ko caabi yi mu dem te mu jik ko te yàlla defal ko jàmm man ci loolu laay dox loolu laa xam yéen a ñëpp jàmm. képp ku ma xam ni sama nit nga képp ku ma xam ni gis naa ne lu baax rek ngay def di nga fës fii ci man ndax man kuy def lu baax rek laay fësal waaye pas kuy def lu bon Omar Sow sagalati nga ma sagal doo sant ku sant lu nit doo sant yàlla loolu yàllaa ko wax ci alxuraan te du ma tàyyi di ko wax fan yi passé gis ngeen kooku ñu naan Baye Cheikh ngeen naan ko xale bu ndaw gis ngeen ko fan yi ci sama snap mu génn ci snap bi ne oto rek la bëgg muy ndaamaar ne dafa jël taxi ba sonn bi mu ko jooyee sama oto ne mi ngi xaar Serigne Touba Xaadimu Rasul may ko oto kon Serigne Touba dogal na ko ni ko Serigne Touba dogalee mooy caabi baa ngi nii yàlla may na ko oto yonent beeg Serigne Touba Xaadimu Rasul ci kan la ko jaarale nag laay wax. oto Baye Cheikh baa ngi nii rafet bees dàq Omar Sow may na Baye seex oto Omar saw may na Baye seex oto oto baa ngi nii matik la mutation complet lépp complet Baye Cheikh am na 4 x Omar saw may na ko oto caabi baa ngi nii ci man baay seex la ñuy xaar mu jël si oto bi boobu ba tey maa ngi koy woo woo naa ko waa mbokkam yi wuy si nañ ma nga kenn du ko xuntoo te jamono jii ñu ne dafa toll ci jamono joo xam ni looy def rek day fës ndax ñi nga xam ni defuñu yow ay oto ngay am defal ñaan defal ñaan ci xasida yi sëñ Tuubaa yi loolu laa bëgg nii waaw non loolu laa bëgg damaa bëgg nga may ñu dara ci xasida yi sëñ Tuubaa yi